baay Matar Matar Mbaye moom indi fii doomu Bécaye Mbaye di nga bëgg di siyaare di leen wax ne wasalaam. mais Siteu tey gis nañ fi nga def lu doy sa doomu nday Coly Faye di def open press nga dugg si ñëpp loolu pour lan la. waaw loolu mbokk la suñu kuli la suñu deret la yee kii bu buñ koy wax moom la tarkinaa bu di ni ku baax bu xewlee dañuy bàyyi suñu lépp ñëw. waaw di wax ne amaguma combat nag maama la mi yow am nga combat wala amagoo combat. non man amaguma combat. waaw man amaguma. <laughs> ñu gis fii lan moo fi sa teewaay. waaw suñu rak xewle rek suñu rak ku bokk ci man muy Coly Faye ku xam na Coly li mu doon ci ñun nekkatul jàmbur ci ñun. rawatina ñun ñëpp ñu jàng ñu jàngee bëre caare yi muy doomu caare yi caare ak lamsaar di benn. mu xewle bés ñu dooleel ko kàttanal ko di ko ñaanal ndam lu seddu gi ci ñun la bokk suñu frère la muy bëre xale bu naan daa mën a bëre mën a xeex dama ne mbooloo mi nga gis ko fi tey xam nga lu solo booy conseiller Coly Faye 2 en tant que frère lan nga wax du ma ko wax publiquement parce que dañ koy seeraan mais li ma koy wax dinaa ko wax tey ci guddi mu fanaanoo ko ba booba ci kàttanu yàlla rak la bu ñu yéen a jàmm yéen ko lépp yee maa moom Elisabeth ma wax ko du ma ko wax ci pele mënoo ma ko wax rek non dama ne yàlla mi may ndam yàlla na ko yàlla may ndam waaw ñi ngi toog di xaar léegi incha allah non ñi ngi wax am nañ yaakaar léegi balaa semaine bu sotti maag benn gaayen rek ah. surprise ba nga laa ngi nii barki yonent maa ngi lay nuyu bisimilah onsu bilaay bi na waali yàlla bisimilah maa lay fay Baye Balla Coly Faye ñu ñëw fekk la Caaroy Géej ñu ñëw fekk fi mbër mbëru mbëru Lansar jàmm gën Caaroy Géej ñëpp ànd benn ñëw fekk fi fii sa fief ñëw jàppale la ci sa combat waaw ginnaaw ma seen yàlla julli si yonent bi di gërëm suma ñaari waajur jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama Cheikh Modou Fall Fall sama Serigne waaw. may sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm samay xarit démb ñi ma defandoo enfant de la rue yi depuis ma nekkee xale ba léegi man a ñoom seen aluñu ma si dara gis nga booy taxaw si kaw bâtiment bi fële ak booy yëngal fii. man na ñoom ñooy ànd te bi nekkee xale ba léegi xam nga da nga da nga fay gis waa Lamsaar ak waa Jàmm ak waa Caaroy Géej da nga ne Lamsaar ni Caaroy ni Jàmm gën ni Caaroy lan moo tax suñu diggante tali séparation am ñu benn la doomu Caaroy mooy doomu Lamsaar doomu Jàmm gën mooy doomu Caaroy ñun ñëpp benn la nous sommes les mêmes yaay tey ñu ñëw gis la ngay indi confiance tey dafa mel ni da nga pare mystiquement moralement mentalement physiquement da nga taxaw pour affronter sa adversaire non laamu ji moo laaj noonu parce que man laamu ji xam naa li ma jaral ak fi may yóbbu respecté naa ko trop laamu ji dama ci entraîné musuma ko entraîné si combat dama entraîné ba feebar ñetti yoon mais musu li ma feebaree damay forcé dem entraînement kon nga xam ne kon laamu ji jaral na ma. ngay que loolu amul lenn benn impact bu mu mën a def keroog ci biir combat bi. non non mënul def ñun ñaar doom ay doom léew lan du ma ko wax wax bu ñaaw xanaa ma koy jaale seen imam radim bi gaañu samedi passé ma koy jaale suñ borom xare ko àjjana imam tege ñoom jaamu gay ma koy jaale bu baax sama mbokk lépp la du ma ko wax benn wax bu ñaaw li ma sama mag waxoon rek si da ba léegi solo laa mais xale bi ngay bëreel xam nga ko bu baax noo ko xamee teral naa mbaam yëpp bi muy bëri dafa leer maa ngi ñëw essan boobu mooy sama sixième combat diggante Sa Thiès xaw ma non Tyson gi gi kii Gris Bordeaux Tyson non non Gris kii Modou juróom maa estaat taxaw nekk booy bu ndaw di ko seetaan mu ne kon da nga bëgg a wax ne Gamou Gueye moo la mag 90 laa judd le 26 décembre kii avril xale bu ndaw laa may bëre sama weer judd si moom ko may bëri moom suñu borom may ma ci ndam may gërëm sama gaa yëpp nag ku lu mbër ku teew fii rërë moo koy ñaanal suñu borom may ko ndam ci kaw giri 2 di ñaanal Abu Ndiaase Bas 2 moo koy ñaanal képp ku am combat ñoom taqe ay Thiat Fora ay Brise de Mer képp ku am combat caare lamsaar jàmm gën rek ku ma limu rek man damaa jur. mais ñu ñëw ñu ñëw ci sa adversaire xam nga ni bëri kat la. sama adversaire bëri kat la man bëri kat la. loolu mooy woon naar ci guuxum soow. ndax kuy bëree qualifié nga naan ko ndax kooku xeexkat la man kaay xeex mu ma gënal kaay lekk barki maam Cheikh Rafal bu bëggee nañ suul tànk ñu xeex 15 minutes bu bëggee bu bëggee ñu suul tànk ñu xeex 15 minutes man ak moom 15 minutes def mi temps yeneen 15 minutes bu ñëw ñu bëri Youssou Ndour moo sut gàmm moo gën a diis dana ma koo baatare daan lan ngay indi suur combat bi. lépp loo xalaat lu ne dama koy lépp lu mu daan indi stade. dina am xeex. dégg lépp kuy geer may fàtte say bal ah may gërëm sëñ Moussa à grâce moom mention spéciale sëñ Moussa samay combat da ciy sonn ci jàpp bu baax may gërëm képp ku may jàppale ku manti doon kullu may jaale suma yaay suma xarit fa Diop dem si yàlla si. kooku samay combat barki maam Serre Fall lim si daan def amul ku ko daan def si àdduna. suñu borom jël ko fan yii passé ma koy ñaanal fu mu tëdd jël ko fi mu jógee amiin waay may gërëm képp ku may jàppale suñu monsieur le maire ma koy woo Njaga Njaga Njaay yow laay waxal lamb ji ni man doomu caaray la eh, da nga war a ci tigé ci kaar ci lépp man caaray laay représenté fu ma mën di dem caaray laay représenté bu ne qualifié du ni qualifié mu parcelle mu caaray la ñuy wax man boo naa bépp mbëru caare bu ñëw bu ñëw bu bu takk ngemb ci lamb lamsaar moom waxaale mu leen ñoom dañuy ñëw far fos bis seen bis la ñoo ko moom caare dama koo jëlale buñ ñëw dañoo war a ñëw buñ ñëw dañoo war a ñëw kon boog nañ ñëw ndax mbooloo bi ñu mujjee dégg ñu ne mbëru caaro yëpp booloo nañ ko ndax dinañ ko gis ci combat bi loolu la mbëru caaro yi léegi ñi ku fi manqué ñun ñëpp booloo nañ musu ñëw xaajale ko bay ñàkk bay ñàkk bolo sa jour ñu ngi ànd. noonu la dañu déggoon ne Thiaroye écurie yi fi nekk yëpp dañu noonu booloo doon benn. Thiaroye ñaari écurie fi am Thiaroye benn écurie fi am. ku taxaw ni la Thiaroye ñaari écurie fi am amul dëgg bokkul dëgg. mbër mu fi bëree écurie Thiaroye sur mer ngay bëree fii benn écurie moo fi am. Thiaroye Cap fi nekk Sa Bopp. dama changé nga génn kayitam bu fekkee gis nga ko hmm. waaw. lu tax ngeen woote kon coalition bi. coalition bi tax ñu woote ko ku nekk da nga xool sa roxub la nga toog fa ñu dem ba mag ñi génn ñu ñu àndaat du booloo doon benn ñun ñëpp. kon ànd bi léegi doon na benn léegi. déggoo lépp Cheikh Diouf Cheikh Diouf moom di ko sant man bu may jàppale gërëm boo jàppale du ma gërëm Cheikh Diouf bu ma dalee bëre écurie sama Elisa nekk écurie caare fa léegi musuma dem entraînement assisté wu ma xanaa ma bañ a entraîné géej père Allah ma koy sant bu baax gis ngeen ni ma mel. poids lourd woon koo xool xam ne xam nga ko damaa entraîné ba damaa ñeer ñeer may sant waa Casamance waa Buno di sant waa Njama waa Gambi waa Gafantin surtout waa Gambi sama entraîneur Kémo ay ñoom Cheikh Cheikh bu Gambi Cheikh Diouf bu Gambi bu Serekunda maa ngi sant di ko gërëm may woo waa kër Cheikh Yérim Ndoumane ñëpp di woo kullu murit kullu Tijaan kullu ñeseen may woo ñëpp di woo bàyyiwuma kenn këru diine yëpp këru njaago yeeg